waaye li ci gën a garaaw mooy asma daf ko daaneel waaye dañoo lànk ne duñ ko jox ay garabam Sénégal ziar naa leen màggal naa leen di leen jox seen wàccuwaay l'heure est grave l'heure est extrêmement grave ma leen ñaan nag ngeen partagel ma sama vidéo bi le maximum ndax xibaar yu wér wóor laa leen di jox yu tukkee ca prison bu Sébikotane Sénégal yéen a ngi seetaan la nga xam ne billaahi wallaahi wa taalaahi bis bu yàlla suñu borom di jël mbugal di ko teg ci askanu Sénégal kenn du ci mucc jëmm jii di président Ousmane Sonko gannaaw ba sëriñ si toogee seetaan Macky Sall lëkkaloog moom ñu jaay ko doole jàpp ko dugal ko ci kaso bi ak 700 yu ànd ak moom président Ousmane Sonko ba tey jii may wax ak yéen ñam duggul ci gémmiñam mu ngi toog ci cellulam téye kaamilu alxuraanam di jàng rek ba tey jii may wax ak yéen nangul wax ak ma sàmba te nangul wax ak ma demba du jaaxle de dafa xam ne lii ñëw ci kanamu Sénégal du neex ndax ay gor la ñuy téye di leen tooñ di leen toroxal ci biim réew li tax nag ma leen ni gën a ñaan ngeen partager vidéo bi mooy ñu ci bëri ci réew mi dañuy xaar ñu ñu tàgge leen président Ousmane Sonko ñu ci bëri ci réew dañuy xaar ñu ne leen Ousmane Sonko dee na bañ bindal ko rest in peace ana ñi ko doon defal ay conférence de presse ana bi dëkk bi daan tàgg ñi daan def ay conférence de presse di ñaan jàmm ci dëkk bi ana imaam yi ana sëriñ si ana ustaas yi ana ñuy woowee seen bopp ay nitu yàlla ci réew mi di gëm ne ñoom yàlla lañ fi nekkal tey de ñu ngi toog di xool ñu toroxal as gor ci biir réew mi tey de ñu ngi toog di xool ñu toroxal ay gor ci biir réew mi te moonte de mois de mars bi nekk ci yéen yaa ngi doon ñaan jàmm ci réew mi waaye tey xool ngeen ñu jàpp as gor tëj ko ci kaso bi mu leer leen ba leer na dañ koo tooñ jàpp ko tëj ko ci kaso bi ak ñoñ yi mu àndam waaye li ci gën a garaaw mooy asma daf ko daaneel waaye dañoo lànk ne duñ ko jox ay garabam ba tey dafay firndeel liquidation politique liquidation physique bi ma leen doon wax jëmale ko ci jëmm ji di président Ousmane Sonko. ñu ngi toog di xaar mu dee ñu tàggee ko askanu Sénégal ba tax na askanu Sénégal yéen laay waxal askan bu diñ bi bu leen président Ousmane Sonko gën a gore mukk bu leen président Ousmane Sonko gën a gore mukk waa ji jox na léppam Sénégal waa ji dàq nañ ko ndax Sénégal waa ji tuumaal ndax nañ ndax Sénégal waa ji toroxal nañ njabootam ndax Sénégal waa ji toroxal nañ ay ñooñam ndax Sénégal te monte de wallahi la azim yéen ñiy tëb di jibile ñépp bu ngeen yaakaaree ne président Ousmane Sonko la ñuy toroxal nax ngeen seen bopp yéen ci seen bopp la Macky Sall di toroxal te yëgu leen ko réew mi nag yéen a ngi toog di seetaan la nga xam ne wallahi la azim fa mu mujj du neex